maa ngi nuyu waa quartier Amdala yëpp di nuyu waa Kumiko bu ñu dalal fii seen koñ di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo imam fay mu jàllale ko ci mbooloo bi yëpp di leen remercier bu baax a baax a baax ci invitation bi nga xamante ne ci invité ko fii di wax ni rek imam xew-xew yi ñu dañuy faral di sawar di ci ñëw parce que fu ñuy tuddee diine rek képp ki jullit war ngaa sawar ci di ko teewee li may faral di wax mooy que ni àdduna dara saxu fi àdduna dara saxu fi li ñuy wax maire député ministre président yooyu yëpp mun naa ne ay ndombal tànk la yi nga xamante ne si si kaw suuf la mais li nga xamante ne sii mooy diine li nga xamante ne si mooy imam doo mës a dégg ñu ne ancien maanaam doo dégg ancien imam mukk mukk mukk ba àdduna tukki te di nga dégg nag ancien maire di nga dégg ancien président di nga dégg ancien député mais ancien imam kenn mësu kaa dégg loolu lu koy wane lenn la rek mooy que ni yi ñooy représenté diine ji ci kaw suuf mooy que ni imaam yi ñooy représenté yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf kon il faut ñu def différence bi entre ñaar yooyu maanaam mbirum àdduna bi ak diine ji te ku xam ni diine moo njëkk te muy mujj rek yaakaar naa sa àdduna day yomb parce que boo juddoo doon ndaw doon liir je pense que imaam yi ñoo lay dalal ci àdduna boo fi wàññeekoo également imaam yi ñoo lay gunge jébbal la suñu borom kon diine dafa doon li am solo ci dundu doomu aadama parce que lépp lu nekk ci diggante ba ngay judd ak ba ngay faatu àdduna lay des muy li yenu yanu ni muy mairie bi muy bépp nombal tànk bu ñu mën a am rek en tant que ay jullit en tant doomu aadama ñu xam ne fii lay des te ñu def si li nga xamante ne ci ëllëg bu ñu jàkkaarloog suñu borom. du ñu layoo moom layoo bu ñaaw donc euh, di ñaan euh, imam ngeen ñaanal ñu bu baax a baax a baax ba yan bi nga xamante ne si yàlla yan nañu ko ci Kër Massar mu doon yan bu oyof te yéene bi nga xamante ne si am nañ ko également suñu xol pour defar Kër Massar ngeen ñaanal ñu ba yàlla may ñu yéene boobu mu egg si jàmm ak salaam ba Kër Massar gis yéene bu ñu am si ñoom donc euh, imam kàddu yi xam naa du gudd parce que tisbaar bi mu jot mais ñoo ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax di leen gërëm di wax ni jotaay yi dañ ci sawar a ñëw parce que ñun ay doomu daara nañu man sama papa imam la day jiite juma donc wax dëgg yàlla xew-xew yi nii dañ ci sawar a ñëw dañ ci sawar a participer di wax ne rek diina mooy njëkk te diina mooy mujj ku ko xam rek wax dëgg yàlla noppale ko donc di gërëm bu baax waa Comico di gërëm waa kàcc kàcce Amdalaay ñoom Baboy Papi ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm imam di jégalu si kàddu yi di la dénkaat suñu bopp di dénk suñu bopp waa Amdoulaye ak waa Comico yëpp donc wasalaam loolu moo nekkoon kàddu yi maa ngi jégalu bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf